wasalaatu wasalaamu ala rasulillah barke maam Cheikh Ibrahima Fall ci loolu la maam Sarañ Fall ci la ñuy fasal sëriñ Cheikh Saliou Mbacke mu sax fi tuwér ziar bi nag dama koy teg ci loxo suñ fàllu tasaareel nu ko yaa daba tey bokk ci bis yi ma gën a bége ñun man dan maa foqar ci moo tax su ma ñemee rek ñii ñoo tax su ma ñemee rek ñii ñoo tax kon suñ fàllu ziar bi ñu ngi koy teg sa loxo rek nga tasaareel na ko dañuy faral di wax nag laa tarfamu aswaatakum fawqa sawti nabi yàlla dafa wax ne yaa ayyuha lasina amanu yéen gaa yi gëm yàlla yéen daal laa tarfaxu bu leen yëkkateeti aswaatakum seen kaddu fawqa sawti nabi ci kaw kaddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bu sëñ bi waxee ba noppi kenn amut loo ci war a teg nañ ko ci sóoraale kon buñ koy def dañ koy def ci kaw <clears throat> ndigal akum yeggal waaye xamatuñ ci dara mu ngutuñ ci dara barki dem rek señ bi dana yow dégg na da ngaa mokkal alquran mënu ko musuma dal ba dara la xam waaye su ko wone ginaaw nak man na xam dara waye alquran jeek alal jeeg àdduna jeeg barsàq ak dund ak di ak aljana yoy yépp xam nga lu gëna a wóor Cheikh Ibra yoy yépp ci mom la dajé te génnul alxuraan maam lamp daf ma koy laaj léegi ne ma lan mooy ab Baay Faal ma ne ko Baay Faal mooy lislaam yi alxuraan waxoo ne na ngeen ko terale yonent bi yëpp maam si Ray Fall terale waat na ko Cheikh Ahmad Bamba ku nekk na jël ci wàllam ku xàmmee la woon nag amul lu am lu Cheikh Ray Fall waxutoon jóge na Ndakaaru di dox ak tànk Cheikh Ibrahima doxam yàgg mu ne ah doom dexug meew gi fii xeeñ na xunn dexug meew gi daan ak jaan ju ñuul ji gunóor yu ndaw yi daw ci kawam boobu kenn daa xam ni muy wax autoroute bi la doon wax oto yi ñooy gunóor yi dox ci kaw fa taxawoon naan dexu meew gi tey fa la Nestlé nekk Nestlé usine bay defar meew ma Ndakaaru ba ko seerafaal taxaw naan dexu meew gaa ngi fii boobu xamaguñ ba xam usine dana fa amam déet autoroute péage bi bu tuddoon ilaa neneen rek du sotti waaye comme ilaa Touba ma ne kon jaan ju ñuul ji seerafaal doon wax bi muy jéblu Cheikh Ibrahima dana ko damaa bëggoon nga sas ma maam Cheikh Fall na ko aw sas day sonal borom Cheikh Ibrahima yaa wax ci jom léegi xanaa xamoo ne aw sas day yokk jom sëñ Matar na ko man Fall damaa bëggoon nga sas ma maam Cheikh Fall na ko waaye aw sas bu matul day bu matul sonal borom demal rek moom loo am indi mun ne ko waaye aw sas day dimbali góor yàlla maam Cheikh Fall na ko sas naa la fukki dërëm atum lëm sëñ mataar dem na Casamance dem na Ndakaaru dem na fu ne liggéey na fukki weer ak ñaar xam nga ñaata juróom-ñaar dërëm fukki dërëm yi manqué na ñetti dërëm mi ngi dugg saxaar nag jëm si njaarim waaye problème am mooy fukki dërëm yi ma jaayante woon ak maam Cheikh Rafal te juróom-ñaar dërëm laa yor nu may def ba am ñetti dërëm yi saxaar gi daw mu jaaxle lool jamono boobu tubaab yi dañuy tere ku fi jaay balotu tisi bala ngaa jaay tisi dangay dem ñu légaliser la benn kayit buy wane na yow man ngaa jaay tissu mais nekkul woon na comme neex rek jënd ko am benn waay bu yor lu man ñetti bali fëgg jaay def ko forot def ko ci saxaar gi bi saxaar gi dawee bay jub si gaar bi commencé di ralentir douanier yeeg contrôle yi dugg ci biir waa ji moom fëgg jaay bi gis contrôle yi ñëw xam naa daal fii tam mayetu ko mu toog comme saxaar gaa ngi ralentir waa ji tijji fenêtre saxaar gi cëppeelu ci ginnaaw contrôle yi dugg gis ay badu fëgg jaay ñu ne ku moom lii kenn nanguwu koo moom sëñ Matar ña ngi taxaw daal ne man maa ko moom ah de ab Baay Faal la jóg taxaw ne man mii maa ko ñu ne ko xanaa xamoo woon ne dañ koy tere mu a ah, maa moom de xaw ma woon ne dañ koy tere nag waaye maa ñu boole koog balitu fëgg jaay yi indi leen fii gouvernance am na néeg bu fa nekkoon fa lañ ko boole denc ko fa yàlla na tóo leen muy taw ci guddi te am ay kayit yuñ fi indi woon yoo xam ne si eglise bi la kayit yi jëm si waye ki yor abi église bi nekku fi ñu ne comme kayit yi dañuy bañ mu toy te ki yor abi église bi nekku fi benn néegi fi nekk gouvernance benn benn Baay fall lañ fi tej ak ay balutu fëgg jaay ne ko eh ku baax génne nak say balutu fëgg jaay wuti fo jëm ndax neeg bi sa dañ ko soxla moom loolaa ko ca libéré far suñ ma tar ñang and ak ñetti balutu fëgg jaay yi di wër na kum ko jaay pour fu kuy mat de ak am courage pour wax ne mourid day am xam-xam muy dox di dox ba dajé genn goor yalla góor yàlla gi ne ko badoot fëgg jaay day jaay mu ne ko waaw faal ñaata nga koy jaayee mu ne waa ji loo yor waa ji làmb gafa kam génne ñetti dërëm moom ñetti dërëm da doon wër maa di koy jaay balot fëgg jaaya ci ñetti dërëm daal jël ñetti dërëm yi complété ko juróom-ñaari muy fukk xool bi sedd nag mu def ko ci génn gisee di daw ne bi mu ñëwee mi ngi fekk maam Sarañ Fall mi ngi toog ci sées buy wëndeelu mbooloo mu bari ko ñëpp di ko jariñ bi mu egsi daal di nuyoo toog mam Cheikh di ko laaj rek nee liko gëna ko gën a yéem mooy dëkk bu mas a jaar yendu fa mam Cheikh rafa laaj na ko ah tar Ñang ana wa dëkk sangam melni ko ah, ko topon ah tar Ñang ana wa dëkk sangam mu nan ko ñanga fa ana wa dëkk sangam mu nan ko ñanga fa ba mu yàgg Matar daal di génne gise gi jox ko mam Cheikh Ibra mam Cheikh dégg lañ naan suma ma bellee ak a Cheikh ibrahim Fall bi mu fukki dërëm yi dafa laaj bantu xat ñu jox ko bantu xat mam Cheikh Fall falang benn dërëm mu génn mu delu di waxtan mu yag mu falangat benen deureum mu gennu fekk be bam yag mu jilat bantou khat bi falangat benen deureum muy ñetti deureum ñetti deureum ya genn mam si Fall sugo jilat juroom ci dess daal di defat ci gafaka gi takkat ko tek ne ñetti deureum ya tege fe sëñ Matar moom daal taggo ak sagom ci saasi mom parce que ne ñett yi mu ci boole bokku ci won suma ma rañé de sëñ Matar daal tambalé taggo ak sagom way xamagul lu xew am benn way bu jaar ci mbedd mi way yalla jaangi yalwal maam Seydou Fall ne ah doom waaye yàlla du yalwaan de mu naan waaye yàlla jaa ngi yalwaan mu ne daa war a wax ne jaay yàlla jaa yalwaan ma yaakaaroon ne yàlla jenn waay la am suñ bambali tudd waa ji naan waaye yàlla jaa ngi yalwaan maam Seydou Fall naan moo waayoo yàlla waaye yàlla ko ku waayoo yàlla duutoo yalwaan woo leen ko ñu woo ko mënu ko damaa bëggoon nga xam ne yàlla jenn waay la am suñ bambali tudd daal yëkk ñett dërëm yi jox waaj waaja kontaan nag boobu ñett dërëm yombutoon di am yamba daaw ko am waji kontan nang lum lu xam mang ko ñaanal mam Cheikh Ibra lu xam ci lu bax rek mang ko ñaanal waye lu wax mam Cheikh dafa nan ko ya wara santam ma wara sant mu fal yalla nga yag yalla nga wër mu ko ya wara santam ma wara santam borom ñetti dërëm ya ci saxaar ga señ ma tar di yuuxu moom dañ sàkkar bi jall ci biti waji nan ko fal yalla nga yag ko ya wara santam ma wara santam borom dërëm ci ga fukki ak yag ñaar ñepp nga won sawara way ñet dërëm yi tay duggu sama kër gi moko ci génne pour wax la Cheikh Ibrahima Fall ku xamone ba xam ghaibu la bi ñuy wax alquran ñu naan xay ba xay bu xay bi xay bu mooy loo xam ne hmm, bët du ko gis de ah lu xew météo yi ñu ngi jàngal taw bi lu gën a yéeme ñu ngi koy def man nga am benn image image bi def téeméeri at desaat ci jaww ji ba léegi hmm? bu njëkk nit da doon tollu diggante doon soxna doo xam doom ji góor am mbaa mbaa ju jigéen léegi nag boo ci xamee dara daal di xam doom ji góor la wala jigéen wala daa feebar wala déet kon yi man a xew yëpp mi ngi xew ben xaybu lañ mënu ko te lijjanti mooy satellite bu tiim armée li kenn ku nek mu tiim sa bammel xam lo reere tay ci bir bammel bi kooku moom gaa yi guñ ci lool moy xaybu mam seerefal na xay bañ taare jang jàngkat yi lay waxal de da na bu sawru yar la na hujurat da na ba lewru yap hunaka hut naxli kër daana xay ba góoti ala xay adam kon amna lu ko yàlla di xamal lo xamni bokut ak li doom aadama wara xam xamal lu ko may xamal lu ko may wala si ni jaahadu fii naa la nahdiyannahum subulana ak a dégg alquran lépp la bàyyee sëñ bàmba lépp ba ci ku ñuy tudd di ko tudd sax da lay jël joxewaat la addiya yàgg loo àndala ko àndalaat mu boole boolewaat leen joxewaat ay addiya ñii ñaata yoon lañ leen joxe addiya ñii fi toll bu ñu leen di fay Cheikh Rafal da leen di fay sëñ Tuubaa fay leen sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma fay leen ndax da leen di ndamoo fi ne da leen di bàkkoo loolu lañ leen di bëggee ñoom ñii bu yaatu boo xam ne li li may faral di wax ñii njabootu maam si Rafal ñii ñooy robinet yi ci biir kër yi kër gu nek da war am robinet bo xamne bo soxla ndox rek ci robinet bi ngay dem bëgg ndox bu taxé nga yanu pan bi dugg ci biir S2 bi fi ni ay këyit nga fay fekk ak machine du tax nga am ndox so yanu pan bi dem dem forage bu ngand ba nekk fële boori stade ay tabax nga fay fekk ak machine ba légui do am ndox waye bo bo dalé biir kër gi am na robinet bo xamne ne tijé mu xellil la ndox mu neex nga naan ci sangu ci te kenn du ne la déet looloo waral ñuy tuddu Cheikh Naye di du ay doom ak seut ngir fu ab tanka warona dem fu warona waroon tege te tegewu fa wala mu daan fa tege lam fa bàyyi woon loolu du fa jóg mukk bëri na ay seex yu Sëñ Tuubaa seexaloon ay ngan yu Sëñ Tuubaa lu mu defalutoon kenn xam nga lu leen ko xañ Seex Ibra waaw dafa am loo xam ne sañ-sañ la Sëriñ Tuubaa dafa wax ne fa ma ànd ak yàlla tànkub doomu aadama jotewu Sëriñ Tuubaa ne ba ma njëkkee dem kër yàlla ñeenti baat laa ko way inna sal juuda wal jalaali malikal mulki wal jamaali dafa ñëw ba ci suuf mu ne inna sal juuda wal ula malikul mulki sil huda jalal ji ak jamal ji do ko te fekkoon démb tey su ko ñëw allamani laahu alim mima ma yàlla mi xam moma xamal lu xamul ca la ko soob nga xam ne kon bu doon seigne touba dañ nan dañ ko jàngal dama nan la yalla ko jàngalal bop boppam ya sirral masul allah yàlla moma ma nàmpal sirral masul ci baramu ci amooñam moom suñ tubaa dafa am yo xamne wallahu zul fadlil azim alquran a ko wax yàlla mo wéru ngëneel ngëneel boo ko seetee tur yi suñu borom di tuddee boppam yooyu ay comportement la doon ay mbubb yoo xam ne mbubb yooyu keneen ku dul yàlla waroo koo sol yàlla mooy jël menn mbubb ni sëñ tubaa mbubb mii saa mbubb jël ko natt sëñ tubaa natt mbubb mu yem ci moom képp sëñ tubaa ni ko jël ko ma may la sëriñ bi ceem soo ko xiyaas mu yées ko mbubbum koo solol sëñ tubaa ku dul mbubbum yàlla mu ma xat ci moom te mbubbum sëñ tubaa ëpp na ku ne lu ñuy wax faalun li maa yuridu yàlla fu mu nar a day xam la day tagg boppam sax soxlaa nga wax li inda arsil majid inda arsil majid léegi faalun li maa yuridu faalun li maa yuridu kooku moom boobu yàlla rek koy sol sëñ bi faalun li maa yuridu maay def lu ma neex du ma ci tàggu kenn ah kenn du ci contesté nu ma ko defee na la lu teree lu amul lu ne maa ko am lu am lu ne maa ko am faalun li maa yuridu mbubbum fa aalu ni maa yuridu la yàlla ci boppam yëkkati ne sëñ tubaa nattal mi itam ndax jot na la sëñ bi nett ko mu yem ci moom képp mu ne ko may naa la ko mooy jëf doo tàggoo loola neex def moo waral mu mën a jël maam Cheikh Anta def ku nii mu mel moom sëñ tubaa jël maam Thierno def ko nii mu mel jël sëñ Mbàkke Buso du faat waxtu jël maam Sëriñ Fall du julli waxtu mu bool leen ci génn kër hmm? du soow mi ci nag wi la jóge soow du ci nag lay jóge waaye diwu ñor ci soow la jóge li nga mën a naan ci soow mi boo ko naanee ci diwu ñor gi daan am di pourtant ñoo bokk ndey ak baay léegi nag toggal nag bi ba noppi suukar soow mi sottiwaat ko ci ndawal bi nga xool pourtant ñoo bokkoon ndey ak baay bi soow ci nag bi la jógewul waaye toggal soosu nag ba noppi daal di suukar soow mi nag def ki li war a àndal ak galaas ba noppi arrosé waat ko ci nga xool ku ne xel dëgg du ci xewul wala ko gis leneen li nga boole baax na waaye man nga ànd gars yi nañ xam li war a ànd ak ñi mën a ànd dafa am li war ànd fu yàlla tudd guddi tudd na fa bëccëg góor tudd na fa jigéen awliya u bu mu wala ulama u bu mu doon am la yàlla bolel ma ci yonenti yonenti bo gis amna na la yàlla bolel yonenti yàlla isa xam ko kuñ ko bolelo yahya moo ko waroon sécuriser moo waroon doon Cheikh Rafal fim ko fete waye dafa dem côté delu ci watu mo waral gis ko ni faato yàlla mo mel non mo mel non dañuy jàng xaside fi ci ndari bisum gam biñu exé ci ya mulhiman wa fakha salli ala man khulikha bal xalxa faaxa xullaxaa kal xalxi wal tusalimi sëñ tubaa ci boppam moo daanu jël keroog di leen xëpp téere yim yorog war nga weeg suukar si nan leen wax leen mi ko doon wax rasulillah wax ñu toll ni ma jox ko li ma yor fàtte na ne moo ko bind di di waaxu di wër mbooloo mi rek nan leen wax leen mi ko doon wax sayidina muhammad wax ñu toll ni rek ma jox ko li ma yor di leen juur ay kaamil alquran ak xëcc di yim yëndoo bind ak ay jàllaabi di leen jox ay wargaa ki suukar ba mu yàgg rek maam Ceerno yuuxu daanu di jooy jooy yu metti Sëriñ Tuubaa dox ba ana ko ana ko ne foofu mu ne ko sëñ Masamba ana ko yëngu mu ne ko maam Thierno Sëriñ Tuubaa dox ba ñëw yëkkati loxoom teg ko ci bopp bi ne ko Thierno neexaayu baatu kiy jàng moo la daane wala dégginu arab ne ko neexaayu baatu ki jàng daane na ma dégginu arab bi ta tagge Rasulullah daane na ma sëñ bi ne ko Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko danaa la wax ñetteel ba te moo ci gën a doy waar li ko tax a doy waar mooy mbind mi ka ko bind fa wax waaye Ahmadu nee ne mbind mi ka ko bind fa ko doon binde keneen comme doonoon ku dul seen waa ji néew du bind waaye suy bind lu ko fa jëlee lay wax waaye du wax lii bi mu jógee ci géej ba ñibbi si am na góor yàlla yi koo xam ne dane bàyyi naa sol tubay sëñ Bamba rek kay góor barka Seexul Xaddim seetal seetal bii jël ba ni faatu du takk tubay nee na góor yëpp war a woon la mu tontu bureau ba ca ndar moo ko yóbbu maa yomba gaa ya woon la ñu baal yóbbu dooy maam jaara labbe bi nekkoon ci biir géej naan moo xanaa waaru ngeen jabar bi di dañuy waar buxaaba bii doyuk hmm gal ga daw ba tisbaar bamba japp julli ñaan madam bu sew mo fa jaar daal taxaw ba koo laal bamba sànni déer ba fey gaay yi badar ko feug ci ndox ci geey suuf jeexna na te du concurrence xamu ci won dara lu ko ci fekk dedet kuy sentu la ci gannaaw bal bu tak doo fetal ahmadou xamul won lu ko ci fekk dekk bawal geeg bu yaatu sax musu ko xoos tey nga def altitude bu toll noonu wala profondeur bu toll noonu loolu wax boo amul xaqul yaqiin doo dem boobu boo eggul ci jaahadu fi lanahdiyannahum subulanaa doo dem man jaamub yàlla wa inni abdullahi gaal gi di jaamub yàlla tubaab yi di jaami yàlla géej gi jaami yàlla benn jaam ci jaam yi terema jaamu yàlla foo koy teg mun na ñoret der bi ne ko wurlu ci ndox mi ne bërit ci gaal gi di cëpp ci ndox mi géej gi di ko gëdd naan ko ya bahru waxi laa tusalli kun za itrabil musbirin wa asad bi anani abdu كان دا ما سدغ لي كان مصطفى خلي كول باي شيخ سالي مك مروم خالكم جاغا نيت مصطفى خلي ني لا دوج كو واخ نان ويتيو فوكو دغي امنا كو يور لوم بغوت ماني نان ويتيو فوكو دغي امنا كو يور لوم نون دانو ويتيو كونكورانسون ساغون سيرنيو كين واي ليما بغ موي ليما بغ ني خامكو موي شيخ الخديم دا فا واخني عصري لد الله في يدي روحي جامي سا بوروم فاي نامكو جامي لا واخ ني سا بوروم keroog maa ngi lay wax ne la Cheikh Abdoulaye Lahat bi muy jébbalu Sëñ Tuubaa gis nga bayit yi bind ci aataytu kal yow ma bi leen xiitaay kulli yëtti yaa xaadimal murtaay lii ku dul doomi Sëñ Tuubaa sañoo ko wax Cheikh Ahmadou Fadal Mbàkke daal ne yaa raa iman mis la sayxi mahlan fala sa taraahu yow miy wër mel ni sama sëriñ la sëñ Fallu luy wax maam Cheikh Anta Mbàkke mi ni màggal tey biñ ko ne dangaa ngaa niroog Sëñ Tuubaa maam Cheikh Anta biñ ko ne da ngaa niroog Sëñ Tuubaa dafa dem woo ay bambara ne leen damaa bëggoon ngeen ñaas ma fii ñetti ñaas ba duutuma niroog moom ngir bañ a bokk ak moom dara tey nag ko wax mooy la ak neexoon ma bokk ak sëñ bi nangam koo gis ak neexoon ma bokk ak sëñ bi nangam ñi bokkoon ak moom ñu leen di tudd di leen tudd ko ci ak yaag sëñ bi sëñ Mandoumbe lu mu waxoon man santu santuma Mbàkke Fofana laa sant Fofana ngir bañ a bokk ak sëñ bi dara te jikko yu rafet yooyu yëpp kat maam Cheikh Ibrahima Fall Baal Mouridine moo ko fi andi lu nit yor benn Cheikh Rafal yor na ci fukk. lu nit xam ben maam sa defal xam na ci fuk bari na ci nguur yalla yi ñoo xamne bi ni top Cheikh Ibra amna ko xamne ba muy dem ay mbokam xamul lu ko waxal dañ na ko won keur Cheikh Ibra mom ku fa dem booy ñew ñaari mbir dal ngay indaale ba ñett ku yàgg keur cheikh Faal kawar bu sekk te sa lañ nga ko indaale ak yére yi xottiku te rowul ak ndox gu dutul wer mu ko ñet yoy mom tuma lu tuma tuumalan nan nako mom ne ko dem keur cheikh Faal boo fa joy ñet yoy ngay indi nguur yalla gi def na keur maam cheikh Faal ñet at ba mu ñibbisi ñett yooyu ñu waxoon ci moom lépp a ngi ci moom kawar ga lépp yére yi fu ne man ko daax te ngëm gu lànd gi tax na bu solut ay dal du yëg na naaj wi daa tàng ci moom ndekete xàmmeetul xarrit wa bardin luy tàng ak luy sedd xamatu kon ndox gu dul wéré ngoog ba mu egsee yoor yoor la fa egsi fekk mag ñi ci benn néegub càkkar ñuy dékkee cere ñu ne ko ah, lii lañ la waxoon ba ngay dem de newoon nañ ne boo ñëwee daal kawar gu sëq yére yu nuroowut ak ndox gu dul dellu gannaaw mu ne waaw ah, wax ngeen dëgg de daal di jàpp ci benn bant bu doon tàkk teg ko ci ñeenti koñ yi xaddu néeg bi ñeenti koñ yëpp a tàkk ñu ne waaw kay ab dof di nii lay mel néeg boo xam ne say maami maam ñoo ko fi defoon mu doon néegu pénc mag ñëpp fa daje nga ñëw taal ko ñëpp ni tisir daw génn mu yëkkati jës bul néeg néeg tàkk muy jàng jës bu bi néeg bi tàkk muy jàng jës bu bi bi jës bu bi jeexee la néeg bi daanu ci kawam mu baaxu ci kaw xal yi génn fàq yan mu mag nag ne tey ku ne wut faal doo fi yenn ah, waaw ku ne faal doo fi yenn du koy ah kay kooku moo demoon barsàq di wëri yaayam ndeke ndeke ci ngay xamee ne gis nga gis nga ku mën di doon yoral nga Cheikh Ibrahima ak njukkal waxuma ne njukkalul àdduna de gis nga li nga jaamu yàlla fii ci àdduna li la yàlla nangul julli yeeg woor yeeg asaka yeeg yu baax yi nga daan def bu fekkee dañ ko def ci compte yàlla rek tëdd gi nit ki di tëdd ci biir bàmmeelam lu baax li nga doon def ci ngay leerlu ci ngay fay courant di ci fay sa ndox bi de biir am na ay facture bi danga gis koo xam ne balaa yowmal xiyam li mu jotoon am ci lu baax da koy lekk ci biir bàmmeel bi ba mu jeex tàkk nga xam ne bu dekkee ko ko yoreeloon bor ko ci adduna wala ko ko yoreel benn xaq yooyu lay yaakaar wala mu yaakaar yërmande yàlla am na ñoo xam ne ci biir bàmmeel la ñuy lekk li ñu am lépp ba mu jeex nga xam ne bu ñu dekkee mënatuñ seen bopp dara am ñoo xam ne li ñu jot a am li ñu am man nañ cee lekk ba dekki desewaale dara am ñoo xam ne li ñu am buñ ci lekkee fukki at képp mu jeex am ñoo xam ne buñ duggee ci bàmmeel yoruñu lu leerloo njëgu sondeel yoruñu ko ci bàmmeel ndax mosuñoo jox yàlla dara ah kay góor yàlla gii ma lay wax dongom Cheikh Rafal la nee na ci laa xamee ne ndeke ku nekk barsàq tëdd ci sa biir bàmmeel li ngay leerloo di ko lekk ba yomal xëy am ndeke maam Cheikh Rafal la ko jox murit bu nekk ci biir bàmmeel sa compte li nga mas a jaamu yàlla lépp dañ koy ëmb denceel la ko ci sa compte boo dekkee ñu boole moo waral ñu naan la murit bu tàbbi àjjana moom dong xaq la benn murit dem rek dugg àjjana yow dong yóbbaale woo kenn ñu naan gàcceeg murit la lu baax li nga daan jëf yow dañ la koo dencal fa nga ko waroon a ko leneen da koo remplacé te loolu Cheikh ko def guur yàlla gi nee maam Seex Faal dama koo bett barsàq mu nga tiim genn mbana nee na mbana ga la ca nekk mi ngi mel ni euh, la wax xànjar comme lu mel ne xànjar buñ togg nee na ñi ci biir bàmmeel yi am na ñoo ne bu leen Seex Faal tibbalee benn kook buñ ko naanee danañ nelaw junniy at ci biir bàmmeel du ñu yeewuwaat naan benn kook nelaw junniy at ne bu ñu benn kook danañ nelaw fukki junniy at ci biir bàmmeel nga xam ne ci compte boobu la ñuy lekk ci leer googu nee na damaa bett maam Seex Faal bi mu nee gees xool ko te faatuwul Cheikh Fall dana ko looy wut fii xam nga alxuraan dafa wax ne kallaa innaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraihim barsaq ilaa yawmi yub'asuuna dañoo interdit ku dem barsaq te deewoo mhm. barsaq dañoo interdit ku fa dem te deewoo xanaa par accident yonent yàlla Ilias de defoon na ko moom dem na fa ba dugg àjjana waaye yàlla da ko wàcce waat ba quatrième mu rey ko soog koo delloo hmm? sëñ Mbàkke bu so tam sëñ Maodo Moussa Mbàkke woo na ko fii njaarim mu jóge fi dem àjjana waxtaan ak sëñ Tuubaa dellu si waat amna am ci mag ñoo xam dañ leen yoni te bobu señ bi dem na ba nopi mag dañ na jóge fi dem aljana waxtaan ak señ Tuubaa wax lañ ko yoni señ bi fajj aaju yi mu delu ci waat lool mom da na am neene bima ne ges yam ci mam Cheikh Rafal ci Barsàq nee ci la xam Cheikh bi mo jox gañ ni ñuy lek ci biir bàmmeel Cheikh bi nako loy wut fi ndax fi ku faatuwul do fi ñew lo fi wut mu nako sama yaay lay set ndax ba xam nga aljana wala ma nga sawar neene na Cheikh Rafal joxoñ ko ben hangar mu def ay ciabi yu bari ne ko jël ci génn ciabi mu jël ci génn ciabi mu nako ko magasin be nee na bu mu tijjee magasin ba la fekk way juróom bu jigéen juróom ñaar fukk junne malaayika wër ko def ko ci njoowaan wurus di ko di ko ko joow ñu ne ko teraanga ji noo ko mu ne ngoon gi ma gàddaayee di wëri Cheikh Rafal te gisaguma ko ci lañ ma defal ngërëm defal ko ngërëm moom mi ak juróom-ñaari maam eh. kon yaakaar jar na lu ne kon yaakaar naa liggéeyal Cheikh Rafal jar na lu ne kon kenn ku nekk yoreel nga ko surtout nag ñu sant Mbàkke ñu sant Mbàkke ñoom ñoo waroon na gën a wax barke maam Cheikh Rafal parce que bu woon kat ku sant Mbàkke ku sant Jóoba ku sant neneen ay yam balang koham xam keur diine yepp bax waye demal ci keur gu amul cheikh la demal ci keur go xam rek amul maam Cheikh Rafal señ bi day tok ngi waxu ak sa mbaxana ak say dal jodd jodd ñew jox señ bi ben loxo mu tok ci kaw nga tok ci kaw nan ko señ bi sawa mo am parce que loolu lañ la yare boo ne señ bi sawa tam señ bi sawa waaw parce que non lañ leen yare ci ñom rek dagan na parce que dañ ne kenn du sukkal nit kenn du jotal nit d'accord kenn du sukkal nit kenn du jotal nit dañu degul alxuraan usjudu li adama fa sajadu illa iblis ba yàlla ne usjudu li aadama sujjóot leen ci aadama ku bañoon sujjóot bi iblis ci la doon iblis ba léegi benn sujjóot boobu yàlla santaane woon te boobu ba léegi néewut bàyyi leen kenn ñu naan sujjóot yàlla lañ koy defal maam serafal ne ah kay doom bisimilah jàmm ko ah, sëñ Bamba daal di koy def obligation ñu koy def par force malayka yi dañ ko jëkk a sant malayka yi def ko ci aadama iblis ma ko lankoon ba léegi mooy iblis fi mu ne kon lépp lu manqué woon ci islaam maam Cheikh Ibrahima Fall wane waat na lu Seydina Ousmane mës a jëf ci lu baax ci lislaam maam Sénégal Fall jëf na lu toll noonu digganteem ak sëñ Bamba ci ngor ak i teggin léegi da ngay xool Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin fi mu tegoon Serigne Touba waaye yow calculer moom fan la ko Serigne bi tegoon moom itam ku Serigne Touba respecté la woon maam Cheikh Ibrahima ku sëñ bi respecté la woon mhm. ku sëriñ bi respecté la woon am fu mu ko teg lool bëgg ko lool fonk ko lool woonu fii sëñ Malick Touré ko Malick Touré loo mas a dégg Cheikh Rafal loo mas a jël baaraamam teg ci ne ko Cheikh Rafal raw kenn dutu ko dab du seex du mbokk du xarit du taalibe du waliyu du olamaaw du kenn kenn kenn kuy diranta mbagga Cheikh Ibrahima Fall boo lay Cheikh Ibrahima Dasuuxi Cheikh Ibrahima Dasuuxi dañ koy way wan martabam Serigne Touba waaye planète buñ ko wan surtout yeneen bi planète buñ ko wan lañ ko ko wan Serigne Touba mel lool lay bind waaye bu guddee buñ ko yéegalaatee mu jàll fu gën a kawe foofu léegi moom fa mu fa mu gisoon démb bu ñëwee Cheikh Fall la fay fekk nee na damaa ñëw ba fekk benn planète boo xam ne benn siis képp a fa nekk buy wëndeelu kenn toogu ci nee na ba ma fa duggee fa laa fekk ak malaayka yi ak yonent yi saa borom mas a bind ñëpp nee na mu ñëwee bëgg wax salaamaaleykum dañ ko ne fii kenn du fi nuyoo fii wax fi du ay teggin fii genn kaddu képp a fiy jut moo fiy jib mooy kaddu Cheikh Ahmad Bamba moom lañ fiy xaar nee bi ma nee dàll daanu bi ma jógee damaa gis siis bi doon wëndeelu sun borom subhanahu wa toog ci kaw siis yi nee na jël jëmmi rasulillah yi jël xatmu nubuwa ak xaatimu nubuwa teg ko ci ñaari mbaggam moom yàlla xanaa kon sédd leen jëmmi rasulillah ci ci boppam nee na Cheikh Ahmad Bamba ñu am fu ñu toj fu leer nañ Sëriñ Tuubaa génnee fu bëgg toog ci mbooloo mi yàlla ci boppam moo ko ne Ahmadou Bamba jógal bul toog foofu kaay fii ci man ndax ñooñu ay mbindeef lan te yow ci ñi bind nga bokk ñi fi toog ay mbindeef lan waaye yow bokkoo ci mbindeef yi ci ñi bind nga bokk ñëwal fii Ibrahima Dasuuxi ne ne keroog laa xool jëmmi Sëriñ Tuubaa muy seey ci leeru yàlla gi ba jeex tàkk moo waral bi mu ñëwaatee fii ci planète bi mu bind ne Bamba yàlla waaw waaw yaa yoroon mbuusu galaas yor bi doon ndox yor pot léegi glace geeg ndox mi jaxasoo na ba gaa yi naan ko ba pare kañ la glace gi dellu si kañ la ndox mi dellu si léegi du too tudd glace ndox mu sedd lay tudd fi mu ne benn yoon rek ci kaw jariñoo ko lool la naar bi gis nag moom daal di ñëw bind Bamba yàlla mbokk mi nag na ko waroo woon a wax lii ndax kii nit ku ñuul la murit yi bu ñuy daanoo itam yow surtout yonent bi nga waroo a wax wax ju dofee nii moo leen aakay ah, liñ ma wan kuñ ko wan nga wax lii ne leen nag ñoo bokk yonent bi na ngeen woor ñetti fan saraxi naa ngi mi giléem wàcc naa ngi mi kaamil ngeen laaj seen maam rasulay kan mooy sëñ tubaa bu leen seen maam yonent bi lu mu leen wax sëñ tubaa ngeen jàppe ko noona naaree def loolu def seen i riyaada def seeni sarax wàcc seeni i di laaj kan mooy sëñ tubaa ibrahima dasu xi ne damaa gént faatu daa gént dee ñu sang ko sang ko julé ko néna mamam Abdou Khadir jilani moko julé néna biñ ko ne jey ci bammel bi bammel bi dafa lèr nañ waye nar bi ne biñ ñu ba wana gannaaw bammel bi dafa lëndëm ñu kuk néna mu yuuxu ci bir bammel batam jeex dal ne man fuma jëm ak lëndëm gi ak fuma jëm ak yawma yi ci alquran fuma jëm ak yawma la laa yanfa'u maalun wala banun illa man atalaahu bi xalbin salim fuma jëm ak lool fuma jëm ak yawma ma nad'u kullu unasin bi imamihim ana fuma jëm ak loolu فلا جمك يوم يقوم روح والملائكة صفر لا يتكلمون إلى من أسن الله الرحمن فما جمك يوم يوم يبري نار بني كبير بامل بي بما يوح لولو أغلن ما يو بامل بي نين مدق أي تانك يو دوخ توتي بامل بي نتاك نتاك أم كولير نان كو جروم نياري بو جروم نياري كالا بوك فلك المسهوم يور كامل القرآن ساتل غو فيصل لخ دالي كربتو كم نار بني كو أنيكو تدو منكو أحمدو نو سانت منكو مباكي فودك منكو توبا ياي كان منكو ماي خادم رسول كبير بامل نار بني نمانكو من رسول الله إسا sëñ Tuubaa ne ko képp ku mas a topp samaam bu demee ci biir bàmmeel comme fa gis ku dul man da ko yàqal waaye du ko du ko jariñ sëñ Tuubaa ko rasul day mooy samaam waaye ku faatu dem ci bàmmeel te mas a samaam ku ko fekk ci biir bàmmeel bi ku dul man xaadimu rasul xamal ne daf ko yàqal waaye du ko jariñ naar bi ne la ca mooy ba may waaj a waxat kii kenn du wax ak moom ñaari yoon daal di càq ci mbaggam yi sànni ko mu tàggi àjjana waaye nee daanu bi ma daanu biir àjjana naar bi nee na ba ma geestoo damaa gis mel ni benn château buñ defaree jamaa nee na ma seen ñu yor ay ndëndi or di ko tëgg ca kaw nee na ma laajte waaw ñii ñum doon nee na malaayika yi ne ko ñii ñooy waa kër Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine naar bi nee na ba ma daanoo biir àjjana immeuble ba ma gis mu doon immeuble or immeuble jama ñu cay tëgg ay ndëndi or boole ko baatub laa ilaha illallah am ay malaayika yu koy aw yoo xam ne ñii dañuy commencé laa ilaha jëm illallahu bu ñu eggalee adduna tukki ñii di julli ñii kabar dañuy kabar ñii rukoo di rukoo faw ñii taaye di taaye ñii sëlmal di sëlmal ñii baax yaatu saalihaat di baax yaatu saalihaat ñoom noonu la ñuy def nee bi mu laajte ni ko ñii ñan la dañ ne ko ñii ñooy waa kër Cheikh Ibrahima Fall Baal Mouridine ñoom ba ñuy tàbbi àjjana yow ma xiyam taxawagul ndeke Baye Fall yi dañuy dugg àjjana ñoom ba nekk ci leneen yàlla soog a taxawal nag bis péej moom wax waral tooñ ab Baye Fall wóoru parce que boo ko tooñee fam la war a jéggale moom du ko fa fekk kon ñu attee ak nangam day fekk Baye Fall yi ñoom nekk ci leneen fi ne weeru koor gi gars yi li ñu mooy xiif bi ak mar wi waaye xam nga ban xiif a gën a garaaw xiifu poos bo demal ba koor gi def ñaar fukki fan ak juroom ñet ñaar fukki fan ak juroom ñi bo lambe seen poos do ci fekk dara dara lu ñu mu fanan ci cheikh bi lu ñu fanaanoo mu yendo ci cheikh rafal mu rafet sax xana bu ñu yóbbu ndogaloon koy bëgg sol te bu ñu mu tilim bu sañon bo lepp ñokoy yam ah lu ñu am jox cheikh rafal way di doyut nak xana lool moy mouride lay sadiq ku dëggal duggu ah nangu jam te gis gor jaayent loo dul xaj wax loo dul weddi namu lu jege ta sori lool lo gis bax ni loo dégg neexna li rek la suñ gor ñi ngi ziarat bu baax baax nga demoon daa daanu rek la daloon la daloon kooka nag moo ma dal Sëñ Fallu su ma ko jëlee moo doy waar la daloon golo rek moo ma dal golo golo daa xëy di yóbbante soxnaam marché soxna si naan ko lu ma lay jëndal golo di jaay nobaate naan ko man kay loo ma jëndal rek baax na soxna si génn dem ci marché bi gis xaj bu ñuy jaay ci ñaar fukk soxna si jënd ko def ko ci gees ambale ko andil ko ko bi mu tekkee kees gi ubbi ko yem ci li ko soxna si jëndal nee na soxna si man waxuma la li nga ma jëndal ñàkk jar gi mu ñàkk a jar njëgam du problème bi mais fi nga ma ko joxee moo doy waar parce que amul garab <laughs> wax na dëgg waaw gu mën a yëg na moom ñàkk gee jar njëg gi moom ci yóbbante bi garaawul waaye fi nga ko ko joxee moo doy waar fi ko wax na dëgg moo ma daal fi nga ko joxee moo amul garab fi mu ne moo tax mënu ma ci dara dama doon jéem rek en tout cas lu mën a xew ku ndaw ak ku mag ak ku góor ak ku jigéen ku baax ku bon fi mu ne ki gën a say-say ci adduna boo ko ne woon kaay ñaanal la nga baax mu nangu mbott daa toog di waxtaan ak mbokkam mbott ba mu yàgg mbott naan saako xorom ni mu diise mbokkam yi nag ne ko mbott yow naa féq yow saako xorom ak ni nga toll noo xamee ne na mu ah, ko yan waaye xam naa ne na de ñu ne ko noo ko xamee mu ne waaja ko yan woon ca marché ba moo ma joggi waaw bu soo ko yan waaye ka ko yanu boole joggee da xam ne diis na parce que poids waa ji ngay mujj boole poids waaw kon su ko defee yàlla ñu yàlla boole jàppale dimbali nu suñ fàllu ñu ngi lay ziyaaraat bu baax a baax a baax baax yaa daba ñu ngi lay baax a baax ak mbokk taalibe yëpp tabarkàlla Seydina Ibrahima ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan tey ma ko joxe damaa ñaan ba noppi kii xam naa damay bàyyi ba kii rek ma yaatalaat ko insha allahu taala maa ngi gis seen interview bi ak sëñ lamp am na solo trop tabarkàlla ñu ngi leen di ziaraat baax a baax ñi teew ñëpp waa waañ weeg ñëpp ñu di ziaraat bu baax sëñ Abdou ci tur waa dëkk ba ñëpp barke sëñ Saliou sëñ Fallou ñu ngi lay baax a baax sëñ Ibrahima ah kay dafa dafa dafa kii moo tax dafa kii moo tax mais beneen yoon rek beneen yoon insha allahu taala ñaan lañu sëriñ boole dimbali saaltu ko bil qur'ani wal kutbi kulliha bi asmaika al uliya bi ayatin fusilat bi ma fihi man xuutun ma fihi muhmalun allahtu bir ruuhi wal jismi xad xalat barke sëriñ Tuubaa